Pierre mbaaxaan Gomis maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay mhm. nga euh, nekk membre euh, euh, du cadre unitaire des syndicats des transports nekk président du mouvement Mbakhane la solution déjà ñu lay laaj si jafe-jafe yi nga xam ni actuellement yéen transporteurs yi yéen a ngi koy jànkonteel si jamonoy tabaski bi lan la. jërëjëf di la gërëm ci ni ma may ma joxe sama xalaat ci jafe-jafe yi ñu am toujours toujours rawat nag tabaski gi ron nga xam dafa dajeeg nag état ci ay accident yu fi amoon ay nit ñàkkoon seen bakkan état jëloon ay dogal ci dogal yi bi ci gën a bi ci gën waar euh, doon boo xam ne dañ ne fu nit demee ba minuit na taxaw dootul jàll ñu jagleel ko nag oto yi nga xam ne ñoom la ñu yoon jox sañ-sañ ñu yebe ci dëkk di yobu ci dëkk muy transport interurbain mhm. mais di sant yàlla borom bi d'abord di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñuy wajur di ñaan yàlla xaare aljana ci faatu di ñaan yàlla wéral ñu wér di ñu kattan te yàlla borom di xool ñu mujj rafet waaye di wax ni loolu foog naa koor gi korte gi nu romb ñu bari dund nañu loolu ci ay jafe-jafe ñu jëm nag tabaski mu am nag ñeenti bés yoo xamante ne bii gouvernement yi fi jaar yëpp ca Senghor ca Abdou Diouf ca Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall tey dañ si doon bàyyi xel muy màggal gàmmu Popenguine ak tabaski pour lan te ku ne xam na ne bu dee màggal ak gàmmu Popenguine dañuy jóg dem ci këru diine waaye bu dee teel ginnaaw ak korite nag mu bés yoo xam ne bi ñëpp ay jóg di ñëpp jóg surtout tabaski di jóge ci barab di dem ci seen i njaboot di jóge ci mag dem ci seen dagar naa na foofu lu dogal am am am am am ba bu ñu ngi jotee ci ay barab ak lu mënti xew ñaan président la Macky Sall ñu ñaan monsieur Amadou Ba premier ministre de gouvernement ñu ngi ñaan également ministère yi nga xamante ne bii yëpp kenn ku ne am nga dogal ci loolu wax bi mbokk pour ñu xoolaat loolu mën cee teg ginnaaw ndax bés yooyu ma la wax noonu muy màggal Gàmmu Popenguine euh, Tabaski dañ daan dañ daan jël ay bés lu mu néew néew mën a may nit ñi ñu dem ak jàmm ñëw jàmm def ko librement joxe ko ay consigne gendarmerie ci biir àll bi joxe ko polis police dëkk bi pour que ñu mën di tolérer nit ñi pour ñu bañ am benn gàllankoor kon ci turu population sénégalaise bi nga xam ne ci la bokk waaye ci turu acteur transport Sénégal yëpp ci turu central syndical yëpp ci turu syndicat mais ci turu cadre unité des syndicats des transports routiers ci turu mouvement national mbaaxal la solution bi ma jiite bokk ko waa Sénégal syndicat transport routier bu CNTS bi mu la jiite ñu ngi ñaan président de la République ñu ngi ñaan monsieur Amadou premier ministre ñu ngi ñaan gouvernement bi ministère yi nga xam ne yëpp incha allah pour ñu mën a jël loolu tegge ko bu ñu mën a dem ak jàmm mu jël lu def lu may yokk jàmm yokk salaam bi yokk dal bi waaye mën tax mën a fekk seen mën a gisante ak seen njaboot bi si des itam dañ ci waxaale chauffeur yi ne euh, accident moo amoon wala ay accident yoo amoon ay nit ñàkk si seen ci lim bu xaw a doy waar yàlla yàlla xaar leen àjjana mm-hmm. état bi ñu dénk réew mi jël responsabilité pour jël ay dogal jàpp ne dogal yooyu mënuñu la bokk ci liy saafara accident yi ñu kon ñu jakkal daw oto yi def transport en commun diggante minuit ba ba ba cinq heures du jot loolu nag dëgg la rek ba ci biir njabootam mu gis mu xamul war na am taxawaay pour indi sa saafara waaye itam ñu am na bëgg a bi ne bu dee xam nañu ko bu dee xamuñu ko woon ñu leen di yëgal ne te bëgg ñu andi ko saafara bu gaaw. Mm-hmm. fi ñuy arrêté car bi minicar bi bis bi cette place bi. ak chaque taxi zone nord bi ci nga bàyyi particulier boo xamante bi borom oto bi amul agrément chauffeur bi amul transport en commun oto bi amul licence oto bi amul assurance bu la cest à def kon transport public de personne surtout di ko jëlee Dakar jëm Touba jëm feneen jëm feneen ci biir Sénégal ñëpp di ko gis ñooñu ñu ngi wax état ne ñooñu fii téye kaar yooyu nga xam ne ñoom ñoo war def transport yoon may leen ko ñu matal leen yoon sant fu ñu leen arrêté nii ñooñu ñoom ñu leen bàyyi ñuy dem clients yi wàccee ci seen place yi di wàcc ci Ndiaga yi di wàcc super di wàcc ci bis di wàcc ci eh, yoon noir yi ay particuliers yu naan war gay ne ñoo ko yëpp di leen yóbbu kon nag ñaari Sénégal amu fi ndax ñaari réew amu fi ñaari gouvernement amu fi ñaari premier ministre amu fi ñaari président amu fi kon ñu ngi ñaaxaat président parce que wax nañu ko ak moom taw nañoo moom weer wii daaw dañ maa cadre unitaire des syndicats des transports routiers ponk yi doxoon moom ci doon ay jafe-jafe ci biir dëkk bi transport dara wax ci turu askan bi bokk na ci la concurrence déloyale nii ñi nga xam ne ni wujje jigéen ji wujje ak jigéen ji nu takk ci farata yàlla sunu Muhammad saa su mu muur ko ci digg du wala juróom ñu muur ko musée muy wujje koo xam ne taar doo nga la am taar bàyyi mu yëgut ndee mu mayewuñu leen loolu gouvernement bi la ñuy muy taxaw ci daf nañ ci ay bëre ci syndicat transport routier ceebu CNTS bii def ci ci rab dugal ko ci plateforme de revendication def ci ay grève booba cadre amut booba cadre booloogul woon waaw ba léegi cadre bi ñu gën koo jël di ko xeex ba ci guerre bi ñu defoon premier deux ak trois décembre deux mille vingt et un bi taxoon président def décret pour jëli alcatrazam bi ci télé bi ragal naa ponk boobu ci la bokkoon. Hmm. kon nag ñun dañoo bëgg a leeral ne suñu taxawaay li mu doon lenn benn bu njëkk bi ginnaaw bu ñu dee doomi aadama ay sénégalais lañu au même titre que ñëpp ay chauffeur lañu muy suñu métier mais ay syndicats lañu ci wàllu social duñu ay politique duñu ay politiciens duñu ay wujju état duñu noonu état ay collaborateurs état lañu ñuy xale état lañu. ñu représenté état lañu nag ay auxiliaire ak i relève loolu moom commencé nañu ko ko mel ni man ci Abdou Diouf ci président Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall loolu nag dafa baax gouvernement bi xam ko ba buy dégg kàddu mu mën a xam ndax kaddu gi may dégg kàddu kuy wujjeeg man la kaddu kuy xeex ak man la kàddu ku soxla sama li ma yor la ñun xeexuñoo gouvernement anakay bu jotee dañuy xeex ak moom. du nu wujjam du nu noonam ci lu mu yor dara. lu may mun koo fal bu ñu gisee mu fal ko ak ku mu ci mën doon waaye ñoom mun ñu noo fal mun ñu noo folli ba may doon syndicat si man ak ñu mel ni man boo président de la bii tey bu Sénégal bii bokkagul ci gouvernement kii nekk te itam chef de gouvernement Sénégal nekkagul ci gouvernement donc kon bu wax te ma danga may tey occasion bu rëy parce que premier ministre Amadou Ba bi muy nekk directeur général impôt et domaine bugg ji tey jële vignette ak patente bugg ñu wote ko loi dindi ko fi dugal ko ci carburant bi yàlla di mën a may ki mu ci jëkk a waxal à huis clos nag benn agent boo xamante ne bi manquage la xam na ko bu ma déggee ndax loolu maa xam ko bo mu dayaloon nag boo mu nekkoon directeur général lu impôt nga bu ñu waxtaan nañu keroog ministre des finance moo ko woo mu bàyyi fare réunion ba mu batale ko fa mooy wax ak moom kon man li ma wax damay wax tur damay joxe tur kon bu ñuy wax day wax ci turu askan bu ñuy wax day wax ci turu acteur yi nga xam ne se ñooy usagers yi waaye bu ñuy wax it dañuy fas yéene wax dëgg ba ku ko dégg tey nit ku dëgg xam ne kii dëgg lay wax àdduna la ñaar fi am dëgg ak du dëgg ba ñu des mooy cag-cag ni ñuy jooyee war gaynde muy concurrence delluwaayal nga xam ne sax mu ne ne c'est anti constitutionnel parce constitution prévoiru ko donc noonu la ñuy si aussi cak-cak ak moto jakarta Sénégal dama bëggoon kilifa yi ngànk Sénégal xamaat xam li leen jox ni mbaaxaan gomis ak waa kàddu unité ak syndicaliste ak keneen ku mënta doon li leen ñi jël ba jiitale ko ci kàttanu yàlla te du sa ngóora doon du yaafusam dogalu bu yàlla la kenn ku ne mën a jël sa responsabilité ngir yàlla kon gouvernement bi ñu leen di ñaaxaat ñu xoolaat bu baax ñu dewaa transport li ñu nekk rek kenn xamatul ba mu doon daa mel ni sabar ku tas fu neex waay def fu neex waay dem nu wax neex waay mel réew mi la dañ ko dénk nit muy président la République mu jël gouvernement am ñu muy jox ay sañ ak ay mën-mën ñooñ lay ne nañ taxaw ñu teg dëgg àddina ñaar fi am dëgg ñu jëfe ko yes mooy dul dëgg ñun ko ginnaaw ginnaaw yàlla suñu borom. waaw léegi voilà si si si tënk rek mais euh, dañu gis ni euh, paas yi dañ ko yokk de trop euh, surtout booy dem Ziguinchor wala wala wala Casamance rek loolu tamit yéen nan ngeen ko sañe mbaaxaan. ñun daal dañuy sàkku ci organe de pression yëpp ñu def ni Rewmi FM. def ni Sud ndax ñoom ñaar ñëpp ku ne woo nga ma dima laaj xalaat yow yaa ay dem Sud FM kon man uju tey suñuy bunt mais nag moom ñu rajo moom ñu télé nañuy woo duñu invité ni ñuy woo it politiciens yi bëgg a yor wut nguur ak bëgg a toog ci nguur ñu wutuñ nguur lañuy nag ay personne intermédiaire di œuvre ci social ci tur askan yëpp euh, yokkum paas bi ñuy wax ni ñu koy yokk ñu di ko dégg surtout ci Ziguinchor surtout ci Casamance naturelle ak dëkk yi mel ni moom ak fu mu doon Sénégal ànduñu ci te dëkk yokk nag maa ne nu yokk ñi soxla bu ñu ëppee li ñu soxla il faut que ci ki soxla waaye fekk li ñuy joxe dafa ëpp li ñi ko soxla ki su kiy joxe day pert loolu ko ne xam na ko kon nag nañ na nga ne yokk dafa war a am ndax ñi jógandoo dañoo bari hmm. bu ko jógandoo ci benn waxtu oto yi di yëpp di dem di yoor wat xott di ñëw bu ñuy yoor waat xott di ñëw fu munti jóge lu mu soo soo lu mu jege-jege lanu soloon ci gasoil bu dem dañuy saar gasoil pour ñëw di yëpp kenn kon ñëw boobu moo tax ñuy yokk ki ñuy jël ci wat day am lu muy doole ci passe normal bi Mm-hmm. pour kooku mën koo dolli ay frais mun a jël sart client bi fi ne kon loolu dama koy wax parce que mooy dëgg dama koy assumer mais nag li ma dul ànd li ñu dul ànd li kaar bi dul ànd li syndicat dul ànd li ñu dul dëgg dul ànd warta ànd mooy fi nga doon laaj fukki dërëm parce que ki jot na parce que màggal jot na parce que gàmmu jot na parce que popa ngin jot na parce que nga nag fukk ya dama koy ful ba mu doon ñaar fukk ku koy def dafoo dëgg ku koy def defoo yoon ku koy def ànduñ ci ak yow parce que du dëgg te duñ ci ànd ak yow parce que du dëgg dëgg mooy mën ngaa yokk na nga yokk la yéenu maana ndax ku ne xam na ni ku ne gis na état xam na ko ñëpp gis nañ ko ñëw te di ñëw def vide ma jox la misaal rek ci Makka lan moo tax paasu Makka cher mooy day naan vol un vol deux vol trois vol quatre ba vol fu mu yem parce que avion bi day dem defaat xott jël si ñun ko vol deux kon nag ni ki sagar ni ki ndeer kon la ci avion ba transport lay def day def transport aérien moo na jëm ba ci oto bi moom muy def transport routier kon loolu dañ ciy wax yokk mënta ñàkk bu ñëpp jógandoo bu ñëpp soxlaandoo waaye nag yokk boo xam ne tegoo ko ci diine tegu ko ci tarixa tegu ko ci yoon da nga koo bëgg sa sa sa njëriñoo bam cadre unitaire àndu ci mouvement national mbaaxaan la solution àndu ci syndicat des transports routiers ci biir CNTS àndu ci mbaaxaan góob si àndu ci parce que du dëgg. d'accord léegi mbaaxaan dernière question rek xanaa ñu laaj la si garage clandestin yi maanaam garage yi nga xam ni jaarul yoon euh, souvent di yàq liggéey bi si tënk rek loo si xalaat. waaw xanaa da bëgg mu gën koo leer gën a leer ci wàllu garage. Mm-hmm. waaye moom laa indi concurrence déloyale. Mm-hmm. ndax yàlla dafa dogal. ña toogoon ca gouvernement Abdou Diouf doon négocier àndoon koog ndemtu yàlla sa secrétaire général Dame Lo pour ñu mun a autoriser taxi de la banlieue ñuy daw ci biir dëkk boobu Dakar doon ko amoon département yi àll yi amuñu kon bëri woon région yi amuñu kon bëri woon dama caa bokkoon PV baa ngi man waaye loolu ci biir dëkk la pour ñu mën a supplier transport urbain de Dakar lu mën a jàppale Dakar dem dikk mën na jàppale aftu mën na jàppale sukkar yi loolu indi sax njaaganjaay yi nga xam ne am ñu licence inter urbain licence inter urbain la yam ci président Ablaye Wade ñu bëggoon ñu pour renforcer déplacement wu waa Dakar. voilà Pierre Mbakhane Gomis may fàttali ni yow yaay membre bu cadre unitaire des syndicats des transports nekk président bu mouvement Mbakhane la solution merci beaucoup.